ku la sampub sëriñ baara mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides sëriñ Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss sëriñ Moustapha Matiley xalifa sëriñ baara sëriñ Boulaye Mbacké xalifa sëriñ Balla Thioro sëriñ Khadim Mbacké xalifa sëriñ Cheikh de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ca Cissas ren ñu tuddee ko a Cheikh Balla Thioro Assane Salam Serigne Abdoul Khabir Massamba Mbacké Serigne Saliou Touré Mame Bou Mohamed Kounta Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Mbacké Soxna Serigne Cheikh Mbacké Modou Fat Khari Serigne Bassirou Mbacké Mor Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng Cheikh Mouhidine Samba Diallo magistrat Serigne Ahmadou Ba président Iba Kole Bao Serigne Amar Birane Thiam Bara Amar Djemoul Alhaji Ali Ndiaye Alhaji Dame Diop Mansour Alhaji Ndiol Diané Alhaji Serigne Bamba Soxna Mame Faty Mbacké Maremoulou Fall soxna Ndeye Guèye Adja Ndeye Fatou Seck soxna Bousso Ngom Adja Mame Fama Diop soxna Momi Dali Guèye day soxna Mbacke Moustapha Massamba soxna Endo Mbaye ak yeneen i kilifa bés bango 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacke samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci 6h ku ci bëgg ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu buurub jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaa raaluhu ñeen wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ma jóg la géeyal Sëriñ ta sàkku ci barke Cheikh Moustapha ci Sëriñ Baara ma jóg la géyal Sëriñ Tuuba te sakku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha Mbàkke Sëriñ Baara ci kattanug Yàlla ak njool Màkka ak ña ko lay tàmbalee ci mbirum si di Lamin Baara mooy turandoo xayru xalqulaayi sayyiduna salaa alayhi la si. waaye Alaaji Modou Fall ñëpp xam di gëm ak sëriñ bi sëñ bi nag dañoo wax ni lii ñu def dañ lay sant rek di la lépp loo nekk nga nga ndax nee na ay gor lañ te danga leen a teral sagal leen foo jëm yóbbu leen wane leen ci loo am bokk ak ñoom mais moo tax xam nañu bis bi rek mooy sa bis bis mooy sa mbégte ñu andi seen addiya nag. di ko jox mu alaaji Seydou si ak alaaji Medoune Fall. Medoune waxal na ko boppam démb ne lu ñu terale as gor teral nga ko Seydou miit lu ñu terale as gor terale nga ko boole ko nekk sa bopp ne moo tax xam nañu bis bii nga am bis bi mooy sa lépp yow sëñ baar rek nga am te bis bii nga am ci ngay leble ci ngay fayee nee na ñoom bis bii nag ñoom ñoom nañ ànd ko yow lii ñu def nag même seen addi la ñu ñaan nga ñaanal leen nag ci barke Cheikh Mouhamadou Bara bu lu ñuy def bi. ñu def ko ñu koy séeréel ñëpp kon sëñ bi na àggal li gis ma jot ci loxo. Cheikh lii sedd na sama xol. sëñ Bassirou ne lii sedd sama xol. la. ne lii surprise la. mbetteelu bànneex. ne mbetteelu lii. ndax lii. ma seqal bari na. seqal bari na de. waaye ñii def lii. waaye ñii def lii. ñoom ñii. ne ci ñoom ñaar ñii. nee gisuma ko de. nag Seydou. nee Alaaji Seydou. nee yow ak Medoune Fall nee lii bett na ma. sedd na sama xol. sëñ Bas nee sedd na sama xol. kontaan nee kontaan naa ci. lii day wane ni. nee lii day wane ni. lépp lu ma nekk. lépp lu ma nekk. ngeen ànd ko ak man. yemu leen ci wax. yemu leen ci wax. da ngeen cee boole jëf. keroog bi ma nee la Médoune. keroog bi ma nee la Médoune. Seydou sax ma nee kafe gi. bi ma nee alaaji Seydou mi kafe gi. na ko toppatoo andi ko. na ko toppatoo andi ko. mercredi ba léegi. nee mercredi ba léegi. mardi sax ba leegi mi kafe gi Seydou mi ngi koy andi di ko def. tey jii sax da ko yokk. tey jii yokk kafe gi. kon loolu. nee kon loolu. yëg la yëg la. ndax nit. bu nekkee ci dara. bu nekkee ci dara. nga ñëw feeñal say yéene. nga ñëw feeñal sa yéene. mbuusu ndox la. donte mbuusu ndox la. dana sedd xolam. nee dana sedd xolam. waaye jëf ji. nee waaye jëf ji. ju kawe la. bari na ñu yor. bari na yor. lu ni gàññi. nga koy seq ak ñoom. ak ñoom. te xel mi. xol bi. xol bi. yéene ji. yéene ji. amuñu ko. Médoune. nee Médoune. yow ak Seydou. yeew ngeen ma. asgor. mais asgor. teraanga koy yeew. teraanga koy yeew. waaye teraanga nga waaye teraanga ji. nee bett na ma lool ci yéen. yaa ngi nii. yaa ngi nii. da ngaa waroon a tukki Médoune. da ngaa waroon waaye chaque jour. waaye chaque jour. ma woo ma woo nga ñëw. nga ñëw. boo yëgee ni maa fi. boo yëgee ni maa ngi fi. doo xaar sax. doo xaar sax. mën na la accident. mën na la da ngay ñëw. da ñëw. te boo paree. te boo paree. booy dem. booy dem. doo ma xool doo ma xool. bëti bëti. essence essence. moo walaabal ci Seydou mi. moo walaabal mi. bi ngeen dem yëguma leen. démb bi ngeen di dem yëguma leen. kon maa ngi leen di sant. di leen gërëm. ci kanamu sama mbokk mi. ci kanamu sama mbokk mi. sëñ Amsatu. moom sëñ Ibra. moom sëñ Ibra Xujja. di xalifa. sëñ Mandumbe. di sama frère. di sama xarit di sama xarit. di nit ku yàlla baaxal. ku bëgg lu baax. bëgg mbokk bëgg mbokk rek bëgg mbokk rek moo ko fi andi andi fi alaaji Omar Seck mi andi fi nga xam ni ku ko xool nga xam ni ko ko xool xam ni nit ku baax la ku yaru ku yaru ku sell ku sell ku mën a sonn ci nit ku dul tay ku dul tay du yuqat alaaji Omar sëñ Mourou Mamoun Niang sëñ Abdourahmane Mbacké sëñ Fallou Sarr sama jarbaat Bamba sëñ Bamba ak taalibe yi fi teew yëpp ak taalibe yi fi teew yëpp ma leen di seedeel ak ñiy seetaan ak ñiy seetaan à travers à travers sanab yi sanab yi télévision yi maa ngi leen di seedeel ni Medoune Medoune ak Seydou ak Alaaji Seydou si nee teral nañ ma. yàlla bu ngeen taqali ko yàlla bu ngeen taqali ko teraanga Mbàkke. yàlla bu ngeen taqali ko teraanga Mbàkke sëñ Baara. lii wane na ni. nee lii wane na ni. lu ma nekk lu ma nekk. yéen a nga ca yéen a nga ca. kon nag kon nag bu ëllëgee. bu ëllëgee ku ma gis. ku ma gis ma jëf. ma jëf jëf joo xam ni jëf joo xam ni. méngoo na ak ñoom. méngoo na ak ñoom. bu ko kaas bu ko kaas. nit ñi nag. ndax nit ñi nag. seen i jëf. seen i mooy tax mooy tax. doo leen yemale waaye ñëwoon naa ci journée bi. waaye ñëwoon naa ci journée bi. dëgg la dëgg la. waaye ñëw. waaye ñëw. indi teraanga ji. indi teraanga ji. nga xewle. nga xewle. keneen ku ñëwoon xewle. keneen ku ñëwoon xewle. sa jëf wuute ak na nga ko jëfe sa jëf wuute ak na nga ko jëfe na nga ko jëfale. na nga ko jëfale. mu wuute. mu wuute. wax dëgg yàlla bu ko kenn kaas. waaye bu ko kenn kaas wax dëgg yàlla. seen jëfa ngi nii. nee seen jëfa ngi nii. moo wane boppam. moo wane boppam. kon yàlla na leen yàlla sàmm. alaaji Seydou yàlla na la yàlla sàmm. yow alaaji Medoune yow alaaji Medoune. maa ngi feddali sama kóllëre maa ngi feddali sama kóllëre. sama cofeel sama cofeel. sama ak yéen sama diggante ak yàlla mu defal leen. xéewal xéewal. ba lu ngeen def ren. ba lu ngeen def ren. bu déwénee. bu déwénee. ngeen def lu ko. ngeen def lu ko. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ñu dem ci biir.